may wax ni wax dëgg yàlla euh, li xew ren mësul xew euh, référendum yàgg na am Sénégal waye bu ngone yeen ñi nga xamni ni journalist yi bu ngeen défé analyse ngeen xamni dafa melni li fi daan am amu fi euh, pour plusieurs raisons premièrement waxtaan ba dégager les grands consensus amul

Euh, euh, achat de conscience bi maanaam xaalis biñ ci jaay kenn xamul nu mu toll euh, joxe ay ceeb lu nekk référendum musul am lu mel nii boole ministère ministre de l'intérieur boo xam ne wax dëgg yàlla dafa wone lu mu man ak lu mu mënul parce que élection musul am ci Sénégal ba à cinq jours ñu naan machine ya paan nañu 200 euh, ba lu électeurs responsabilité responsabilité Macky Sall la parce que moko fi ministre de l'intérieur bobu sénégalais war nañu taxaw pour organiser élection ko en son temps malheureusement il euh, a ni nak lu mel nonu kuko def ci réew def nga faute bu grave Euh, ñu teggi ko teg fa keneen koo xam ni ku neutre lay doon mu organiser élection ministre de l'intérieur boo xam ni campagne bi ñu ngi ko gis muy def porte à porte kenn mësu ko gis ci suba dégg naa ma ngay wër di distribuer ay t-shirt wax dëgg yàlla kooku kooku xamul sax liñ ko jox lan la xamu ko parce que bu ko xamoon du doxale noonu kon ku mel noonu wax dëgg yàlla war nañ ko dàq ci ministère bi euh, teg fa keneen koo xam ni Euh, day nek à équidistance des partis politiques pour mu mën organiser élection sérieusement mu dem mu dem APR continuer ci partem politique intérêt wu ko mais dès l'instant que ministre de l'intérieur le warna garder une certaine distance par rapport au parti malheureusement loolu kenn gisu ko. Ah, waaw lolu c'est regrettable quand même. Euh, parce que nit ñi waron nañu ñew voter té tendance bi ma gis fi dafa melni mo am ci Sénégal yépp parce que ci suba ba tay lolu lañuy wax lolu nag njaqare bu rëy la Euh, euh, xaw ma nit ñi li ñuy def daf leen a neexul wala li Macky Sall proposé moo leen neexul waaye daal man maa ngi ñaan nit ñi génn parce que citoyen dafa war a accomplir droit civique am euh, kooku maa ñi far ñi war a wote wi ak ñi war a wote non yëpp kenn ku ci toog sa kër maa ngi lay ñaan nga génn dem wote ji parce que loolu tam mooy intérêt réew mi. par exemple dégg naa ci benn organe de presse. ñu Ismaël Ismaïla Madior Fall moo wax au cours d'une rencontre que 15 points yi am na points 18 le waaye 15 points yi moom la ñoom permettre de faire le marketing du référendum. 3 points yooyu nag lan lañ ci nëbb wax deug yalla luñ ci mën di neub buñ ci défé lu dul yoon peuple bi taxaw bañ ndaxte am na yoo Sénégal duñ ko nangu mukk ñëpp xamnañ nak limay wax mais lolu du am ci Sénégal Mouk, wala ñu vous savez moi euh, euh, j'ai battu campagne autour d'un point essentiel euh, c'est-à-dire que la notion de droit nouveau qui est une notion qu'on a connue il y a cinq ans en Europe et vous savez pourquoi cette notion est apparue à cause d'une certaine frange de la population, d'une certaine catégorie des populations euh, occidentale euh, à qui on voulait offrir une place dans les différentes lois fondamentales. Donc si aujourd'hui on nous propose euh, la notion de droit nouveau, nous, nous sommes en droit de nous inquiéter et de penser qu'il y a quelque chose, quelque chose qui se cache derrière cette notion de droit nouveau. Tous les droits étaient inscrits dans la Constitution. Et quand il parle de droit nouveau, ils ont dit droit à un environnement sain, mhm. ce qui figurait déjà euh, sur l'ancienne euh, constitution. Je crois que nous attendons donc de voir euh, le contenu donc de ces droits nouveaux, le contenu réel pour demain alerter et organiser les masses afin de s'y opposer. Parce que nous ne tolérerons jamais au Sénégal que ces droits-là soient inscrits dans notre constitution. Mhm. Je crois que ça, c'est tout à fait clair, parce que l'écrasante majorité, qu'il s'agisse des musulmans ou des chrétiens, ne sont pas d'accord. Donc les Sénégalais ne sont pas d'accord pour que ces droits soient inscrits dans notre loi fondamentale.